man sel bi maa ngi sant yàlla rek di ko sant sant boo xam ne xam naa fu mu commencé may xaw ma fu mu yem di julli Seydina Muhammad sangu-sang yi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadimu Rasul di gën a sama njébbal ci Cheikhul Xaadim naan ko Mbàkke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar du ma mës a fàtte sëñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Xaadim ci àdduna bi du wax Sénégal dama naan moo fi nekkal Cheikhul Xaadim ci àdduna bi kenn ku ci nekk nag doomu aadama bu ne am xarit am nga wóllëre am nga koo bëggal sa bopp muy sëñ Moustapha si di ko ziar di ko ñaanal yàlla si Malick mu gudd fan te ànd ak wér sëriñ Moustapha Sy Jamil sëñ Moustapha Cheikh Tidiane Al Maktoum sëñ Moustapha Sy sëñ Babacar si sëñ Moustapha Seydi Haj Malick sëñ Moustapha Sy Ahmada Tijani sëriñ Moustapha Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di nuyu waa Dakar net di leen ziar di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér daje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw mi nga kook noonu ko gis xam ne ni ah, xàmmee ngeen ko muy Selbé Ndom ah, li ñu koy njëkk laaj kay moo nekk ni Selbé dañoo gisoon jamono ji paase moom ay problème ci aji Sarr ak Ousmane Sonko dëkk bi ñëpp ah, jaaxle ñu lay laaj est-ce nañoo amaat yaakaar ne aussi jàmm dina amaat ci dëkk bi. nga ne da ngeen gisoon jamono ji am ay problème jamono ji paase mm. ay jafe-jafe amoon fii ci Sénégal mm. ah waaw loolu loolu moom c'est entre Ousmane Sonko ak Adji Sarr mm. ñoom ñaar ñoo amoon seen jafe-jafe Adji saar jékki-jékki daal di porter ñu ne Ousmane Sonko ah dafa euh, viole Adji Sarr a ko jiiñ ne da ko viol loolu moom moo indi woon coow li waaw Ousmane Sonko génn ñu jël ko yóbbu ko pour mu wuy ji yoon mu ne nañu euh, enlever xawma xawma lan humanitaire bi mhm. nañu ko nañu ko dindi loolu doonoon ab jafe-jafe fii ci senegal mhm. waaye ah alhamdulilah rabbi alamin léegi daal gis nañ ne yëpp dal na daal dala gum na mhm. alhamdulilah jàmm daal am nañu yaakaar ne am na fi mu nekk nii ndax xeex amatul deret tuuruwul sant yàlla bu baax mais ba léegi tamit bu ñu xoolee tamit amaana leneen lu ci xew parce que gis nañu kilifa diine yi génn nañ euh, jël seen xaalis bari joxe ko tey est ce que mënuñoo jàpp ni yoon la woon tey euh, El Hadj di génn waat Adji Sarr maanaam ba xam loolu noonu di yeewaat benn fitna ci sénégalais yi. non non non non loolu du fitna ndax El Hadj Diouf dañ koo tooñ El Hadj dañoo lakk këram xëy na nag El Hadj Diouf lañ lakk këram moo tax xëy na mu génne Adji Sarr mais bu nekkoon man la man maay wax ak El El El Hadj bu Macky bu bu euh, Adji Sarr di génn moom du ci du ci sax génn ndax bu ci génnee rek dañ naan complot la ndax Adji Sarr xamul média Adji Sarr xamul micro loolu moom boo xoolee sax nga xam ne Adji Sarr mi nekkut waaw donte kon li may wax li muy wax dëgg la wala nekkul dëgg aussi maanaam Adji Sarr nekkut nekkut parce que xamul loolu. mais bu la déggee da nga yaakaar ni kon euh, kii El Hadj Diouf lu ñu jël ak këram lakk ko kon loo tax mu génn Adji Sarr. ah dafa mer ah. dafa mer neen ndax nee na Adji Sarr clientam la ñu ñëw lakk këram mhm. ah mu ne lekk-lekk ya gannaaw dafa nekkoon ñu lekk ko légumes yi ñu lekk ko mhm. maanaam sénégalais dañoo xiif ñun ñëpp ñun ñëpp la ci xasaale parce que euh, ñun ñëpp ay sénégalais te suñuy doom ñoom ñoo dem foofu mhm. li tax euh, su ma doon moom du ma du ma accompagner Adji Sarr damay bàyyi Agisaar mu def conférence de presse wax li muy wax ndax nit ñi ñu ko doon xaar. Mhm. fi mu ne nii li Agisaar wax ñu bëri dañ naan du dëgg parce que gis nañ ci El Hadj moo tax. mais ak tamit réaction ni nga ko gisee ak ni nga ko jàngatee. nan nga ko gisee waaw man Adji Sarr ak Sonko man loolu sax euh, man euh, man mii rek mën naa cee àtte. lu mhm. bari mën naa cee àtte lu bari bari mais man dama bëggul fitna ci sama réew. Mhm. sama réew soxlawuma ci fitna utuma ci fitna bëgguma ci fitna. li may wax mooy borom salon bi bu ko kenn fàtte. ndax borom salon bi li Adji Sarr wax am na ci loo xam ne man dama koy gëm ndax salon bi mu wax ne euh, euh, dañuy jël euh, baignoire def ci ndox mhm. taal sondeel def ay fleur nga sol soutien ak slip ci xale bu ndaw boo xam ne juddoogul mhm. xale bu ndaw ndaw boo xam ne maanaam ab jànq la mhm. nga jël ko sa salon muy maase am na façon yoo xam ne yow danga koy defloo ñi nga xam ne xam nañ àddina loolu mooy yoon mais jël ab jànq boo xam ne parce que Adji Sarr seen dëkk jir na sama mag boo xam ne sama yaay ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay amoon na fa jëkkër mun tudd Ansu Sarr man mosumaa gis paa bu jullitee noonu nangoo liggéey commerçant la woon nda doon jëlee ay suukar rek ay warga ay meew gambi di ko indi moom furat la doon def mu ñu koy wax Ansu Sarr paa bi mosumaa gis mu manqué waxtu ba ni ko yàlla jël jër na moom am naa ci ñoom confiance waaw Ousmane Sonko aussi kilifa la man toujours dama naan Ousmane Sonko moo juum. naka la juumee. non Ousmane Sonko moo juum. waaw xanaa man mi nga xam ne sax yëtuma réew mi am na foo xam ne fu ma daan doxi sax doxeetuma fa lu ma daan def sax man defatuma ko hmm. ndax xam naa ne nit ñaa ngi may déglu. Mhm. Ousmane Sonko kilifa ko toll ni moom. Mhm. Ousmane Sonko julli ba fii nga ba ko xoolee xam ne kii nii jullit la doo gis Ousmane Sonko ba xeeb ko. Mhm. soo ko gisee danga koy naw da nga naan kii da macha allah li ma ko tuddee ibaadullahi saalihiin. tudd Ousmane Sonko xayru ummatin uxrijat linnaasi Ousmane Sonko moo warutoon a génn bàyyi ñaari jabaram nan day dem ci ay salon de massage parce que conférence de presse yi mu def yëpp wax na ñaari wax différent am na ci wax gis naa ci euh, euh, tiktok bi ñu bindal ko vaar. Mhm. ndax dafa njëkk a wax ne ba ma nekkee xale damaa amoon feebar nangam ak nangam moo taxoon ma doon dem léegi biñ ko convoqué ba pare muy wax ne lépp lu ma dal Macky sàll la ndax feebaru ma dara dara jëtu ma jabetu ma defu ma nangam ak naam ak nàngam mu nekk dëw ñaari wax yoo xam ne maanaam àndut man li may wax Ousmane Sonko mooy sa tànk bi na ko téye. fi nekkee bëgg nga àddoon njiitum réew Sénégal. Mhm. man Selbé Ndom maa la wax loolu bul demati ci salon jëndal say forote wala nga jënd sa karité ñu def ci affaire mant yooyu jaxase ko di la ko foroteel sa yaram bi te nga téye sa tànk bi ndax lu la dal dal na ma dal na dal na kii dal na kii dal na kii da ngaa bokk ci askan bi mhm. yàlla defal la jàmm ku la gis dina la jox cër amul kenn ku lay gis ba xeeb la lii boo koy continuer askan bi dinañ la xeeb te man bëgguma loolu. macha allah ku la gis dalay respecté boo soloo ba sal sa mbaxane moom dañu xam ne kii jullit la macha allah kon nag ginnaaw da nga yóotu réew mi te di ko yóotandoog say moroom maanaam maanaam say say morom ñuy nëbbatoo maanaam yow it del nëbbatoo noonu waa di dem ci salon de massage maanaam xale bi Adji Sarr Adji Sarr xamul woon Sonko Adji Sarr nee na borom salon bi ak Sonko moo xamanteeg Sonko mooy wootanteeg moom téléphone. su ko woowee <laughs> borom salaam ne ko demal nga ubbil ko mm-hmm. kon man tey su ma amoon ci yoon man su ma su ma bokkoon tey ci yoon mm-hmm. man borom salon dama koy woowaat mais borom salon bi lu wax leer na aji saar leer na ci yow mais man leeru ci man xëy na da nga di gune man bu nekk ñeme naa taxaw mu ne man maa boole aji saar ak ko mm-hmm. maa jël benn waar bi nekkoon nekkoon na ci def ndox accompagner client boo koy accompagner yow jigéen nga sol sa silib sol sa sitin sa yaram wi liis nga dugg ci biir baignoire ndox encadré en li accompagner góor góor gu ne góor la ko góor la du jigéen Sonko góor la du jigéen. kon bu ñu la déggee da nga bëgg a sa wax da bëgg a jàpp ni kon li Adji Sarr di wax tamit li ma la wax Sonko laa ne. bu mu hmm. demati ci salle de massage. mais massage am na droit dem na woo góor mu maase ko moom Ibadou la Salihin la Sonko Ibadou la. suñ ko ibaadu la yoon mayu ko lool ko lool beneen jigéen bu mu takkul di jël yaramam di ko laal man maa wax loolu. mais dégg nañ ñu ne tey jii comme ça góor ni boo demee di di ah, di massage bu fekkee da nga jël rek ngir massage foofu noonu lislaam nee nañ. foofu boo fa yow ak man du parce que da nga di gune. yow ah. xamoo la neex nga xam. doo day waxtaan rek yoon da dul yoon. waaw moom xam na ne mayu ko mu bàyyi ñaari jabar mu bàyyi ñaari jabar. Hmm. te xale jigéen yi koy maase 4 mai. ñaari jabaram ñeenti ñeenti loxo lañ yor lan lañu lan la mën a am foofu te amu ko biir këram njëkkoon na def jogante pour doon président jël jël place mm-hmm. lu jafe Sénégal génn rek am ay xale yu ndaw nouvelle génération topp ko di reyante ndax moom booba lañ la waroon xam boppam booba la waroon natt boppam xam ne man mii kat fi mu ne nii mm-hmm. mën naa taal réew mi mu téye tànkam wàññi lu bëri loo xam ne su nekkee daf ko doon defit mu wàññi ko te xam ne lii kat suñu borom def na ma kilifa mhm. ndax fu ma génn ñu ne diw diw diw diw war a xool tànk ya jéego ya muy dox mhm. xool fa muy dugg balaa ñu ne ñu koy joxoñ baaraamu tuuma mhm. entourage Sonko nañu xoolaat nañu xoolaat ginnaaw yàlla def na ñoom ñoo far ak Sonko ñooy ànd ak sunko ah faa ñuy saytu Sonko lu muy def ak fu muy dugg ak la may wax ak la muy def mais ñu gisoon tamit ah jamono jooju noonu coow lu bari loolu moom am ay violence tamit ak ay ak ay déret yu ci tuuru ñu daal loolu noonu est-ce que nekkul ne tamit ah, ah, affaire Ousmane Sonko kase kase kase moo loon loolu. waa xam man dama leen waxoon ne avant dara di am. Hmm. ci Sénégal set laa waxe woon ne. ne leen déret dina tuuru première manifestation bi ñëw déret tuuru. ñu woowaat ma Sénégal seetu ma demaat def en direct ne leen deret chauffeur bi moo ma yóbbu woon fàtte naa tur bi mm. ne leen deret dina tuuru nee naa leen deret tuuru na tu deret tuuru na waaye des na mm. te yëf yi nañ xam fu mu commencé mais bu ñu xam fu mu yem mm. far deuxième bi bañ koy bañ koy woo muy dem di wuy ji maanaam deret jafa tuuru kenn xamul nu mu toll ci la dee yi ëppee sax daanaka waaw loolu moom waxoon naa ko du dara bu ko kenn gaafal ne lii walla lee man suñ ma woowee affaire politique la loolu Ousmane ko def li mu def politique la ndax moom kese mënoon naa jóg dem wuy ji yow suba teel 9h lañ ko convoqué 9h mooy dina fekk mu yegg si xaar 9h jot mu dugg ñu def li ñu def mais affaire politicien moo mel noonu xëy na affaire politique moom moo tax Ousmane ko woote ne nañ ci teg suñu bakkan mhm. affaire politique rek la. ndax bu nekkuloon politique Ousmane Sonko man amoon naa problème tribunal mais man dama dem wuy ji wow ma kenn te bu nekkee ñaar nit sax am na ñoo xam ne ci Sénégal gi bëgg nañ ma ko bëgg nañu Selbé Ndom mhm. bu amee fukk yu ma bañ am na fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne bëgg nañ ma àdduna ñëpp mun na laa bëggandoo mhm. mais dafa neen première fois nga nit ki mhm. bul xool ne kii président la wala daa bëgg a doon président ba doo ko wax dëgg yàlla dafa ne xulil xaq walaw kaana murran te Ousmane Sonko moo leen gën a jàng. Mhm. jàng na alquran soo xoolee Ousmane Sonko da nga xam ni kii jàng na alquran man nag gis Ousmane Sonko yàkkamtiwu ma ko ndax mën naa am tay suba ginnaaw suba. Mhm. bañ ko njëkkee woo demul. dafa waroon wax ne eh yéen ñi ma bëgg man de woo nañ ma mais faw ñu dindi sama sama malaanu kiiraay miñ ma solal pour mhm. léegi nag. wow ma kenn kenn ku ci nekk na toog sa kër su boobaa. première bi du am ay deret yu tuur waaye dafa ne mi ngi woote. kon affaire bi rax na politique daal. non politique la li mu def politique la rek loolu politique la su nekkoon man du ma defee noonu mais moom politicien la loo tax mu woote ngeen kaay leen def politique moo tax ñu ne ko jaaral nii mu gën a jege mu ne leen day wiiri jaari université loolu yëpp affaire politique la rek ngeen adduna bi dañ comprendre ne Ousmane Sonko day politique. mais bu nekkoon Ousmane Sonko kese kese kese kese moom sax moo naan lii la mais affaire bi dafa rax politique. nañ ci xam loolu maa ngi dégg ñu naan Macky Sall ndañ ne dafa de dafa lu tax man xoolal man ànduma ak Macky Sall ànduma ak Ousmane Sonko man yàlla laa àndal yàlla yonent bi doon taalibe Sëñ Tuubaa bëgg Cheikh Ahmada Tijani mais man bu doon man duma duma duma duma defe noonu mm-hmm. mais politique moom. politique la na nit ñi xam ne affaire bi politique la te Macky Sall mi ñu ciy wax dafa ànduruma Macky Sall mais Macky Sall woowul Ousmane Sonko ne ko dama ci salon de massage ñu maasee la sa yaram bi Ousmane Sonko moo taal otoom gis nga gis nga man Macky maa ko gën a mere man bi ndax heure bi waroon naa fekk Macky Sall teral ma maanaam bu dee benn fan sax wax naa ko loo xam ne gis na ko toog na ñaari at ak ñeenti doo koo gis. kon c'est pas parce que damaa bañ Sonko bañu ma Sonko hmm. bañ ma Macky Sall hmm. ndax lépp Sénégal la xëy na bis dina ñëw ko mën naa doon président yàlla yàlla rek moo xam comme ni Macky Sall nekk président bi ma gisee Macky Sall nekk président dama nekk Macky Sall yow da ngay doon président mu téye sama ñaari loxo làmb sama poos photo baa ngi fii hmm. làmb làmb làmb poosam bëgg maa may boobu sama yaram bi tàng na ma ne ko doy na te boobu awma lu ma reere maag sama ñaari doom affaire complot la Macky sàll da koo kii du benn complot. Mhm. xëy na après mais li Ousmane Sonko jóg gàddu tànkam. Mhm. taal otoom dugg ci ñoom Adji Sarr di maase wu Macky Sall waxul Ousmane Sonko ne ko demal jigéen maase la. Mhm. Macky Sall bootul Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu jël ñaari tànkam. dox dem ba ca salon ba ne nañ ko maase te man li may samay jinney wax. affaire bu mu tàngee ba tàng. barke laa ilaha illallah dañ ne affaire bi daaw la woon du ren. nekkul ah. deux mille deux mille vingt et depuis deux mille vingt la man lu bëri mën naa ko ci wax waaye dama di sénégalaise fière de l'être. Mm-hmm. bugguma loo xam ne day taal sama réew. man yëf yi fi mu ne nii mu fay sax ñu bañ koo waxati man moo ma gënal maanaam kenn ku ci nekk ndax dafa am ñoo xam ne yàlla da leen a may xam nañ lu bari. kon maanaam ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wis ci ndox mu sedd la euh, yàlla waxoon ne euh, safara sa su yi dañoo taaloon am kan mu bay bu bu rëy mm-hmm. def ci ay matt bëgg caa lakk Ibrahima ndax Ibrahima li mu gëmoon yàlla te ñoom gëmuñu yàlla ñu bëggoon ko dugal foofa bañ koy waaja dugal rek moom la yàlla yónni Jibril ne ko na wax ne yaa naara kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima kon loolu affaire Sonko Adji Sarr bi ñu ngi ñaan yàlla mu wis ci ndox mu sedd mm-hmm. guyu mais buñ naree luqatu ci biir mm-hmm. ah te du may bëgg sax ngeen di ma ci laaj mm-hmm. du may bëgg ngeen di ma ci laaj Sonko kilifa la kilifa nag dangay xam ne yow mii kilifa nga nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi caaxaan yi kenn ku ci nekk rek man mii su ma neexoon dama naan aw ma jëkkër fu ma neex laay dugg dag maa mas a gis ci mbedd am na loo xam ne dama koy dama ko moytu dama koy daw mm-hmm. aussi ni gisoon problème ah, Diary Sow waaw yaakaar naa nga dawaloon xelu sénégalais yëpp na leen Diary Sow mi ngi bërëb sàngam mi ngi ci jàmm waa sénégalais yi ndax tey seen xel mun a dal ah Diary Sow kat man bañ ma laajee bañ ma njëkkee laaj ci jaari Sow boobu la ñëpp jaaxle mm-hmm. xam nga dañoo war a gëm selbe Mhm. dañoo war a gëm Selbé Ndom mii taalibe Sëriñ Tuubaa bii nga xam ne bu xeebu la dañ maa war a gëm gëm nañ ma sax dañuy soxor soxor gi la war a bàyyi ndax am na ñoo xam ne bañ ne kii jaari soow mhm. lu nekk wax nañ ko ci mais man bi ñu ñëwee laaj ma dama leen elle est saine et jaari mhm. sow fu mu nekk moo fa bàyyi boppam dara jotu ko ñu ne ndax deewul maa leen mu ngi dund ba yàlla may ma ci ndam mais sa loolu ni nga dalaloon xelu sénégalais est-ce que mën nañ koo xaar ci problème bi nii. bien sûr bien sûr ah nu ñuy def nu ñuy def xam nga mbirum yoon moom mbirum yoon dafa nekk loo xam ne maanaam kenn mënut a taxaw ne la lii tey jii wala lii nii suba. Mhm. déggoo li ma man bu ma mhm. wax boobu dañ koy daal di euh, tëral ci suuf. Mhm. ndax tey jii 2024 euh, su su Ousmane ko demee te doonul président mën nañoo wax ne xëy na dañ koo fexeel. man ma sañoon maanaam yoon. Mhm. daal di koy gaaw àtte ko mu daal di tëdd benn place mhm. ndax Ousmane ko mën a dem jongante ji. 2024. Mhm. du dëgg ndax fi mu ne nii buñ ko téyee rek dañ naan xëy na dañ ko dañ ko dañ ko doon kale dañ ko doon faagaagal moom moo tax ñu bañ mu dem présidentiel. maa ngi jox euh, Macky Sall message la président de la république. maanaam affaire Sonko ngeen gaaw régler ko ndax sun ko mën a waajal. pour doon président waaw li mu bëgg nañ ko waajal ñu seet ba xam 2024 ndax Sonko moo doon président wala Sonko du doon président ndax fi ne lu ñu ci def rek li leen di sikk te affaire présidence moom dinaa ci ñëw président rang la rang la te foqar ci amul ci président foqar ci amul de xam nga man jongewu ma mhm. ñaanalu ma nji borom njiitum réew yàlla daf may woon ma gis rek ne la lii laa gis gisoon nañ sax ci ah, ci jamonoy kii ah, Abdoulaye Wade élection yi ngeen woon gis nga Macky Sall mu nekk mu dugg biir palais te est-ce que mu ngi jàpp ne à part ah, Macky Sall am amoon na kenn koo gisaat koo xam ne war na mun dugg palais jiite réew mi. waa loolu damay wax jaami yàlla yi nga xam ne ñoo seetaan Selbé Ndom te am yaakaar ci Selbé Ndom Selbé Ndom marqué empreinte man damaa commencé ca Abdou Diouf. Mhm. Abdou bi muy wàcc xam nga Abdou Diouf deful élection mhm. Senghor a ko jox Senghor a dem bàyyee ko mhm. mu téye Abdou bi muy wàcc dama leen ne Abdou Diouf day wàcc mi ngi gàddu keesam di wàcc kii euh, euh, euh, Ablaye Wade mooy toog mhm. Ablaye Wade yàlla dafa def may gisanteeg moom ci Dakar net laa koy waxee ma gisanteeg moom ci taatu géej waaye moom diggante Ablaye Wade ak géej gi dafa am ab miir mu bañ mu ne moom du wax ak man Ablaye Wade jóg dem mhm. miir ba daanu mu ñëw si weñ yu njëkk yi si weñ yu njëkk yi moom la kalpe Ablaye Wade nekk man maa dugal sama loxo ci biir génne kalpe bi jox ko mhm. ci laa ne Abdou Diouf day wàcc Ablaye Wade mooy toog te réew mi day am xéewal mhm. barke Seydina Mouhamed boobu maa ngi dëkk ci benn pantre di fay pantre bi trois mille cinq cent francs aw ma dara mhm. ma werante ku ñuy wax euh, am damaa dëkkoon ak moom jabaram danaan togg di ma tibbal su ma bëggee togg man damay taayal damay yëkkat xaalis jox ko mhm. jabaram mooy togg tibbal ma ma ne ko nag ab du Diouf day wàcc Macky kii kii mooy toog euh, euh, Ablaye Wade mhm. Ablaye Wade balaa moo wàcc man dugg naa ci pale bi ndax gis naa Macky sàll ànd ko xaritam xaritu Macky Sall dafa ñuul kooku képp ku naa xaritu Macky Sall la <coughs> kenn la Macky Sall am mooy ku ñuul ku am bët ku rafet ku ñuul ku am bët ñëw wiiri ci ginnaaw pale bi daj ji bunt bi mm-hmm. fekk ab Wade mi ngi toog ci fauteuil bu ñuul fauteuil yu gudd yooyu wane ginnaaw mm-hmm. rideau bi rek moo fa des mm-hmm. waaye bunt bi dajje na ko Macky Sall boolewul dara ko wax dafa croiser les bras taxaw wéeru ci bunt bi di xaar ab Abdoulaye di génn moom mu dugg ci pale bi Mm-hmm. foofu laa tegoon ne Macky Sall day doon président. Mm-hmm. loolu bi mu weesoo. Mm-hmm. ma gis Abla kii euh, kii Khalifa Sall. Khalifa di ci Dakar net laa ko waxee encore. Khalifa Sall balaa moo am benn jafe-jafe man Selma Ndom nee naa euh, Khalifa Sall dina am problème ndax dafa fekk Macky Sall yore ñetti kees moom mag Marème fay Sall. Marème Faye dafa bëgg dara bu weex tàll. mi ngi may dégg na wax. madame Faye Sall dafa bëgg dara bu weex tàll moom la lañ yore seen ñetti kees Khalifa Sall moo jël ñaari kees yi sànni ko ci pax ñoom ñu dese benn kees moo tax ma ne président yàlla mën naa def mu am ñetteelu mandat su amul ñetteelu mandat gisoon naa Karim Wade di dugg ci biir palais bi nañu xam ne nguur piis la yàlla dala ko jox nga téye ko euh, euh, kii euh, Macky Sall téye ne piisam deux ans quatre mois doo ko doon président mhm. xool leen temps bi Macky kii bi ñu tëjee Karim Wade bi ñu tëjee Karim Wade mhm. fekk na Karim Wade téye piisam dem nag moom di xaar kon su nee Ousmane Sonko non contre ma Ousmane Sonko. Mhm. non contre ma Ousmane Sonko Ousmane Sonko sama frère la. Mhm. billaahi wallaahi. tallaahi dara gi Seydina Muhammadin mi nekk sama dënn bii gisuma Ousmane Sonko dugg ci palais palais bi pale de la République bii gisaguma ko hmm. c'est pas parce que je suis contre hmm. buñ ma joxee kaamil léegi ma dóor ci sama loxo duggal sama néeg ngay ne ma kaamil bi ma wàcc laa ilaha illallah muhammad rasulullahi ne gisaguma Ousmane Sonko dugg ci pale am na ku jege Ousmane Sonko koo xam daf ma daan woo hmm. Ousmane Sonko mooy doon président ma ne ko gisaguma ko mun ne ma bàyyil ma ñëw sa kër fatu fa ma ne ko sama kër doo fi fatu pour jàng fa ay ay alxuraan. Hmm. wëlbali sama bopp bi doo ko def. man c'est pas parce que damaa contre Ousmane Sonko wala ma faral Macky Sall Macky Sall mayuma juróomi dërëm joxuma benn benn almet hmm. woowu ma gisuma ko kon aw ma benn intérêt. Hmm. naan dama koy faral lii lii li ma yàlla won laa gis. te laa mën a teg sama tànk. Mhm. ba ba ñuy gis Karim Wade ñàkk fee ñàkk ñëw Sénégal ndax kooka ka jege Ousmane ko dafa ne moom bu deewee. Mhm. bu demee àjjana dina mu yóbbaale àjjana. loolu moo tax ma booleke ko génn ci moom ba mu set ndax ginnaaw moom. Mhm. xam ne fi mu jëm ëllëg man xaw ma ko yàlla rek moo xam man fi may fi may yóbbu ku ci am sa àjjana pour Selbé téye ko ku ci am sa safara téye ko ñu ma bëgg a gis. dinañ ma gis ñoo xam ne amuñu soxla pour gis ma seen affaire la man yàlla laa yaakaar ku am sa àjjana téyel koo xam ne yaakaar nga yaa ma yóbbu àjjana téyel man ma xaar yàlla mi nga xam ne moo la bind bind ma mais bu kenn xalaat ne damaa contre Ousmane Sonko wala ma bañ Ousmane Sonko wala may par parloo ndax yàgg yàgg Macky Sall dina fi jóge mhm. keneen nay ñëw bu dee Karim la xayrul bu nekkee yàlla dépparti na ko ndax damay bañ la ma daloon ci Eumeu seen ak moo Lo dala dalaat ma. Ah, kon danga nga jàpp ne instant yii nii kii ah, Karim Wade moom moo. jëlee Karim Wade moo war a topp ci ci Macky Sall. Karim Wade Karim Wade moo yéeg ci escalier yi di geestu askan wi. Hmm. di yéeg ci escalier yi palais bi di geestu ah, askan wi te am naa yaakaar ci yàlla yonent bi Serigne Touba. bu ma hmm. yàlla naxul Karim Wade moo war topp ci Macky Sall hmm. gisaguma nag Ousmane Sonko. gisaguma Ousmane Sonko. Mhm. gisaguma Ousmane Sonko muy leer c'est pas parce que ne dama contre Ousmane Sonko man nag mhm. taalibe Serigne Touba laa bu xeebu. Mhm. doon nit doon doon taalibe bu xeebu xeebu xeebu mais li ma sunu borom won rek laay wax damay bañ taxaw tey ne gis naa Ousmane Sonko bu ëllëgee élection am. wala yàlla wulbati jamono euh, Karim Wade ñëw duggaat ci palais bi. mais fu ma fi gisee Ousmane Sonko dinaa leen ah. ndax yàlla mën naa xiin ba nga yaakaar ne day taw. Mhm. mu jékki-jékki daal di def ngelaw mhm. daal di nax saay mais pour l' instant ba ba ba fi may toog nii. Mhm. kan gisaguma Ousmane Sonko ci biir palais bi. bu ñu ko jógee dañuy dugg ci làmb ji ku xam Salba xam ko ci làmb macha allah léegi dañ li ñu njëkka laaj mooy que ni saison bi tëj na am na combat yi taxaw. am na sax combat bu taxaw nii le 4 avril ama seen ak kii ak euh, Lac de Guiers est-ce que mënuñoo xam combat boobu noonu Selbé na la ko gisee. waaw Eumeu Eumeu Sène Lac de Guiers maanaam komba boobu day ñu ngi ma koy wax. Mhm. waaye maa ngi xaar sama boroom rek ma wax àddina bi encore. Mhm. Selbé léegi mi ngi jëm mag ba may commencé wax aw moon bejjaaw léegi maa ngi am bejjaaw. Mhm. Hmm? nekkatuma xale boo xam ne tax làmb ji kenn fayu ma ci. du mbër may bëre. du promoteur ba. làmb ji taxoon na ñu bëgg maa tëj. brigade de recherche. Mhm. waaye lu ma yàlla na toola mënuma koo baax. Mhm. ndax nit ñi xam nañ ma ci ba pare du ma wax mukk loo xam ne gisaguma ko. Mhm. gisaguma dara ci diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers. gisaguma ko bu ma ko gisee. incha allahu rabbi ci kattanu yàlla dinaa leen ne lii laa gis ñu def ko nañ ko daan defee. waaye fi mu ne nii tey tey. mënu mhm. ko ma la wax ñoom ñaar gauche bi wala droite bi ah kan moo ci daan. Mhm. waaw su ma neexee nag ma xool tànki tànki caméraman bi sax mën naa cee seet. tànku caméraman bi bekk mhm. tànk yi. su ma neexee parce que man fu nekk fu nekk laa xoolee ah fu ma neex laa xoolee. bu la gisee instant yi koo wax dara ci làmb jooju. ak Seydina Mohamed su ma neexee léegi léegi su ma taxaw léegi léegi rek kii nu mu def tànkam rek su ma neexee ma wax ci man fu ne laa xoolee. yi nga yii sama pettaaw yii barke Seydina Muhammad mhm. ñeenti pettaaw yi su ma neexee wax ci loo xam ne danga naan wax ci yow si mhm. jëmm ji loo xam ne danga naan kii dafa dof mhm. man bu ma neexee barke yonent bi sallallahu alayhi wa lii ma yore ñeent yi rek ma wax la ci loo xam ne du dañ lii don don la bu ma suñu borom may mais gisu gisu leen takk ay affaire nekk fi yëfu dof mhm. non non man je suis née naturelle mhm. sama papa ne lii mooy xew mhm. te xam ngeen ne selbe Ndom marqué na empreinte am bu dee benn fan sax li fi mujje mooy deret ji kon sëriñ ba doon fen naan maay wax ak Selbé àdduna yëpp nañu xamaan ne day fen de xam nga xuloo nañ ba mu ba mu ba mu dóor ma Touba doon sama goro waaw man waxaatuma fi ne deret dina tuuru ci Sénégal set te booba deret tuuroogul midi actu yi ma ne leen deux mille vingt ñu ne deux mille vingt métti na ma ne leen deux mille vingt et un ko gën a métti hmm. kon kon nga xam ne na àdduna bi xam ne fen baaxul hmm. xam nga li gën a neex ci àdduna mooy doylu hmm. li la sunu borom jox nga doyloo ko. doo ko xaar mais tamit est-ce que mën nañoo xam yan affiche yi ba xam gisaatoo dara am na combat yi nekkaat ci ñu kanam Bombardier Balla Gaye. Bombardier oh. Balla Gaye moom am na ku ma ci gisoon mu takk ak ceen ci diggante Bombardier Balla Gaye mais ginnaaw combat bi newaguñu jour tel la wala mois tel. Mhm. maanaam tey jii soo waxee ni diw laa gis. Mhm. maanaam keneen ka war a ka war a ñàkk day jóg. làmb ji bu njëkk ba lu mhm. mel noonu moo ma indi woon ci diggante euh, Eumeu Sène fenkat ba taxaw nee na moo dëpp combat bi kay moo mën a fen man maa jum maa njëkk gis am Eumeu Sène jaaxaan sama kaw armoire comme ni mu jaaxaane barki laa ilaha illallah li ma ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa man mii maa jum ndax dama koo teel a wax coach Eumeu Sène taxaw ne mënuma leen daan may dem ki sama armeelu papa ñu xabtal ma may dem sama armeelu papa naan leen fii lañ may suul loola maa ko tey denk 5 millions ma ci dara loolu di ko passé dem Touba ñaari fan laaj toog ñetteelu fan ba ma dem Touba génn samay mbiskit duy ginnaaw oto bi ba mu fees loolu maa ko tey loolu léegi laa baax bu ñëwee ginnaaw suba la combat wala suba la combat bi lu ma ci gis dinaa leen woo ne leen diw laa gis muy daan benn selbe ndoom moo wax ne Balla gay dina daan Yékini boorub ndeyjoor ga ba saraxe xar togg faare bu mu génn te bu ngeen xoolee faarub Yékini bi daa takk suuf Bombardier Tapha Tine deret dina tuuru e waaye journaliste yi dimbale leen ma su ma amatee ndam ngeen taxaw ne Selbé am na ndam mais su ma amee ndam da naan muut bu ma yàlla eh, eh, weddee nag ngeen taxaw Selbé nii mi de temps dama naan est-ce que journaliste si gore na hmm. waaye yàlla na natoo lii lii hmm. may wax nit ñi dama déglu rek hmm. waaye su ma amatee ndam damay bëgg ngeen ne Selbé am na ndam incha allah gisaguma ci leneen ci làmb ji di ñaan yàlla macha allah yàlla def ci jàmm mbër yëpp bëre ndax mbër am na ñu topp ci am ginnaaw ay waajuram. Mhm. di ñaanal mbër yëpp ci saison bi ñoom ñëpp ñu am combat. Mhm. di ñaan yàlla def saison bu neex. dara mhm. jëy Seydina Muhammad. salaamaaleykum salaam comme ni mu ko waxee ñu gis tamit euh, euh, temps yu passé benn kilifa ci liggéey di Thione Seck def lu nekk ci àdduna euh, ñoo doon laaj tey jii boo doon wax ci Thione ak qualité yi nga gis ci moom lan nga ñuy wax ci coono kooku noonu di Thione Seck. waaw ah li nga ko xale comme ni ko xale yi di waxee rek papa Euh, bett nit ñu bare bare bare bare bare bari bett nit ñu bari sax bett bett àdduna bi sax laay wax bett waa këram macha allah mu nekk nit ku baax Thione Seck nekk ku nekk nit ku jullite dafa am journaliste yu ma laa laajoon mhm. ndax danga am ak avinité papa Thione mais li tax ma naan xam naa Thione xam na ma daf may woo téléphone mu nekk ay fen loolu dugg ma ci de mhm. musuma am ak Thione benn affinité Thione Seck mësta jël téléphone woo ma su fekkoon fekkoonte dañoo wax tey ku xam numéro Thione Seck Selbé boo xamee numéro Thione Seck dina jox ay milliards fistine duma ko ci lekk ndax xawma numéro téléphone Thione Thione sekk la muy woy mm-hmm. sax yi ci biir suuf tey mm-hmm. dundee néew ci suuf xanaa ñoom duñu woor mm-hmm. passeport aji taxe fii nga koy liggéey wax wax joo xam ne daal maanaam lépp looy fekki foofu fi nga koy liggéey mm-hmm. muy wax ju leer du wóor. ba ma ca gën a neex nag. Mm-hmm. bamba tuuba bamba Njaareem. suñ bambay boroom jamono ñi judd démb ak tey mm-hmm. bamba la waate nu Thione Seck euh, sama yaram baa ngi daw. jël na ko yàlla xare àjjana. ci darajee Seydina Muhammad. yàlla seede na ko la muy woy moo tax bañ ko téye. billaahi wallaahi watallaahi ma dem ñaani permis dem seetu ko. ndax woyam day dalay dalay yee. mais nekkul ne damaa am ak affinité Thione Seck ma wax ko tamit walla mu doon ma woo wala mu doon ma seetloo Thione Seck musumaa seetloo mhm. musumaa woo ne ma seetal ma maa gisoon ñu téye ko rek ma xam ne kii nit kii boroom kersa la mhm. ku baax la ku dëggu la mu neex ma ma dem seetu ko mais kenn wu ma demal seeti ko wala demal dimbaloo te ba ma demee it dama ko ñaanal yàlla mhm. mu génn foofu ndax nitu kerse la am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na xamuñu waaye am na la tax ma jóg xam naa ko nga ma demee laa gis deuxième fois waali foofu ne ko sa papa laay seet mu remercier ma mhm. ah ba ma déggee ne dëddu na àdduna it damaa dem ba foofa mhm. jaale waññeeku di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe ah foofu mu dem gënal ko fii mu jóge mhm. yal na rëccu li mu fi doon toogee sax ba am 60 ans waaw ah, na ko rëccu ndax foofu mu jëm neex macha allah yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ndax nit ki moom bu demee rek dem na nañ ko ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe maa ngi ko koy ñaanal ndax coon sekk xalaatul kër xalaatul oto bu mu bàyyi xalaatul dara ay muumin yu nekk biir këram loolu rek la xalaat xam nga yàlla dafa def ci man dama am baatin mhm. dëkku maa ngi xaw ma yaayam cosaanam xaw ma baayam cosaanam xam naa ne baayam wonkat woykat la rek mais damay gis ci waali loo xam ne tey jii waali sax mën na maa daw hmm. ndax biisu ngoone bi ma ko njëkkee wax ne waali damaa gis jinne tey loxoom ndeyjoor bii biisu ngóone daf ma ne waaw dëgg la hmm. maamam amoon na ay jabaru jinne biisu ngoone de gestive hmm. léegi xam naa dañoo dem waxtaan ci seen biir biisu ngóone invité ma naan ma mënoo bàyyi jàmbur man damaa jàppuwaale man xanaa damaa war a dem daw dem ci Serigne Touba gis nu muy gisee sëriñ Touba nu may gis gisee Seydina Mouhamed nu ma yegg a gis sama borom ndax nañu xam ne martaba yàlla bu la bëggee defal wëñ wëñ. wëñ lañ lay tegal nga di ci yéeg yàllaa ma won waali. Mm-hmm. dumaa ko sàkku sunu borom moo ma won kan mooy waali. ni ma sunu borom wone Macky Sall war a doon président ni ma sunu borom wone Abdou Diouf mu wàcc gis nga seen yooyu laa bëgg ñu génne ma ci man waruma sama bopp waale yàlla moo ma won waale won ma jinni mu àndal ak yeneen yàlla daf ma may baatin nañu xam loolu man su ma doon sàkku pour ku may gis moo xam ne laa nekkal wala yàlla dama yóbbu ma yéeg aras fekk yàlla mu toog euh, kursi man su nekkoon maay defal sama bopp man maay doon jaamu yàlla du ma jaamu kenn nag du ma sibaru kenn man Selbé jaamu yàlla laa doon taalibi Sëriñ Tuuba hey xëccoo ma leen de xëccoo ma leen man Selbé Ndom taalibi Sëriñ Bàmba laa ku mu bëggul bëgguma la exemple fii lu fuy ja lu fuy waay jaay rek bés dina ñëw mu lamb tiitar beeg beew beeg dara ko fi jarul ndax loo fi mënta am ci àddina bis dina ñëw nga bàyyi ko fi sama fauteuil bii ma toog de bu may dee kenn du ma suulaale ak moom fii laa koy baax asima kër gi yére bii ma sol bu dee yére téeméer la sax fii laa koy baax moo tax ma doon taalibe suñu Tuuba di dal nañuy bàyyi naan dañ may jéem a déstabiliser man kenn mënu maa déstabiliser ku am sama àjjana nag téye ko ku am sama àjjana téyel bu ma kenn may àjjana man ki ma yaakaar wóolu ko doyloo ko muy yàlla li tax ma teg ci Seydina Muhammad yàllaa ko teg yàllaa ñu tànnal Seydina Muhammad ne mooy xayru xalqilaa mooy awal di aaxir di zahir di baatin yàlla tagg Seydina Muhammad ne ko lawlaa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala lawxin wala qalamin fekk sëriñ Tuubaa fekk sama baay doon taalibeb sëriñ Tuubaa ma doon taalibeb sëriñ Tuubaa hmm. mais leneen du dul loolu lépp fi laa leen teg ngelaw la ci man rek mhm. yàlla mi nga xam ne moomu bind may ma lii mhm. kooku moom mënuma koo baax xalaatuma ko baax sax nag. Mhm. comme li nga ko waxee ni ñu waxoon sànq rek ci Papa Thione mu nekkoon euh, ndaanaan nekkoon kilifa tamit mu mu amoon lu bari ci loo xam ne euh, ci Wally sekk tey jii yi képp koy xoolee da koy dem xoolee ko ci euh, Wally Seck tey boo ligal tey Wally lan nga xay wax. ah Wally Wally ah Wally na góorgóorlu muñ rek Wally góor la. waali góor la du jigéen di waali Baay Faal la taalibe Cheikh Ibra la waali soo bëggee mu may la xaalis danga koy waatal ci barke Cheikh Ibra waali taalibe sëriñ Touba la bëgg na sëriñ Touba lool bëgg na Cheikh Ibra lool li mu am mu ngi koy bokk nit ñi léegi nag euh, la coon sekk doon woy naan balaa ngaa xam mhm. li sa baay daan daj mhm. nga màgg xàmmee mm-hmm. Mm-hmm. njabootu wër la mm-hmm. añ réer ndékki màpp ci sa kaw ah, ah. waale ngi doo ko doon bàyyi nag fi léegi du xam waaye bu demee ba ci kanam dina toog xalaat indiwaat wooyu boobu papaam wooyoon balaa nga xam li coon sekk daan daj léegi màgg nga tekki nga njaboot gi yépp wër la lépp ne màpp ki sa kaw waale ngi doo ko doon kilifa di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ak wér rek ndax euh, sama rak la suma doom la. Hmm, tey jii ban rafetlu nga du am tey ji ku ci mel ni papaam bi sundu tey téye loxoom soutien ko tuuti. xam nga loolu seen vie la ñoom. Hmm. xam nga man Youssou Ndour téyewul sama loxo. Hmm. Youssou Ndour ak Thione Seck dañ naan ànd. ay xarit lañu woon. c'est normal Youssou Ndour téyewaale. Youssou Ndour dafa téyewaale avant avant Thione Seck di feebar wala muy dee. da ko téye. Hmm. du dëgg. Hmm. ñoom luñ ci def rek defaluñ ko coon seen bopp lañ ko defal. Hmm. tey lu ñu defal waali rek defaluñ ko coon seen bopp lañ ko defal ndax Youssou Ndour am na doom buy Birane Ndour ak ñeneen. xale bu loxoom setee mën naa bokk ak ndab mag ah, mag bool. te waali loxo bi set na. kon muy coon sekk muy euh, Youssou Ndour. di Baaba Maal mhm, mhm. Ismaïla Lo mhm. Omar Pène Père Ouza ñoom ñëpp dinañ jàppale ndax ñooy bàyyi Wally Moussa Ngom jiitu dem coono ngi nii dem noonu la baayam yi fi des na topp ci ginnaaw baayam yi te xam naa ne dina topp ci ginnaaw baayam yi waaw kese waaw mi ngi noonu yaakaar naa nañ amul ci ay minutes jeex na bëgguñu woon sax émission bi euh, euh, jeex parce que neex na lu ñu def lu rek jox euh, mu wax dernier kàddoom rek. waaw di gën a sant yàlla rek xam nga Selbé moom fa ngeen ko fekk day sant yàlla ndax man damaa amul kenn ku dul yàlla man Selbé Ndom hmm. yaakaaruma kenn ku dul yàlla doylawuma kenn ku dul yàlla wóoluma kenn ku dul yàlla. Hmm. koo koy Selbé di wax nit ñi nañ indi seen xel te jéem a dal bàyyi puukare. Hmm. lu fu waaye am ba di ko bang bangee nit ëppale na la ko ne mu toog moom lu bëy di lekk bay cëppi cëppi mm-hmm. xar yor na ko lekk na lu ko ëppate ne muut mm-hmm. ñu joxante nit ñu joxante cër mm-hmm. respectante maanaam bañ di xeex nit di ñaan yàlla Dakar net macha allah sit bi doo ko ñëw suma kër nii ah lii ma ci wax lépp lu ngeen ci yóotu rek yal na ngeen ci am lu ko ëpp ndax xam naa ne tey am ngeen lu bari macha allah. yenn ah, mm. yàlla dolli jàmm. di wax nag gars ñi nga xam ne. Mm-hmm. sàcc yi nga xam ne dañ leen di woo naa leen ñoom la selbe du selbe selbe woowul kenn. Mm-hmm. jox naa leen numéro yi fàllu dina bindaat numéro yi ci suuf mm. ngeen dégg ko xam ko waaw di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mi ngoog tey yaakaar naa leen andiloon neex na leen. Euh, di suñu yaay Salbé moom ndeysaan ñëpp dañ koy déglu parce que lépp lu mu sa wax rek jàpp nañu téere la euh, di rafetlu moom it bu baax parce que bi nga ko nee dañoo bëgg a ñëw def ak yow euh, émission bi danañ la ñëw leen tegu ci benn baat kon yaakaar naa loolu noonu ku oyof rek moo ko mën di gërëm tamit nag sama tailleur Assane tey moo solal lii ne ma sol ko nga defee ko émission di ko ñaanal suñu boroom lépp lu mu bëgg rek moo ko xam yàlla na ko suñu boroom defal mi ngi dëkk Pikine Redis bu ko defee tamit may gërëm sama cadreur Fallou mbay ak sama chauffeur bi Ngagne Mbaye jaajëf